Senclic yéen ñi abonné gul abonné leen gaaw activé cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyikoo ko jàngin jëf. saar bi moo gën a gudd ci alquran aay bi gën gudd tamit ci saar bi la nekk mag ñi nee nañ ku ko di jëfandikoo da ngay gudd fan gudd fan baax na bu barke. waaye boo guddee fan te barkewul kese la ah si barkelee nga fi sa si jamaa hmm. balde so juuti taw wondaaki e barke hay ndiga kono so famdi kadi hay so tawi ko jul capantati wondi e barke no fan bu gàttee te barke moo gën fan gudd te barkewul kon yàlla nañu yàlla may fan bu barke yaa rabbi allahu suuratu baqara ñu ngi koy tàmbali si barkeem yàlla na ko yàlla wàcce suñu kaw alif laam mim la tàmbale bisimilah rahmaan rahim dégg ngeen ko hmm? jeexul de bisimilah rahmaan rahim ñeenti laam la am ñeent laam laam bu nekk fanweer la fanweer ba muy ñeenteel muy téeméer ak ñaar fukk mooy makiin inda zil arshi makinun waaw ñetti miim la am miim bu nekk di ñeen fukk ñeen fukk ba muy ñetti yoon muy ñaata téeméer ak ñaar fukk makin dikkaat cent vingt ban jur moom la ñëw na toj kaaba gi mu bañ ah fiilun fii luñ téeméer la ak ñaar fukk amul benn rab buy dox tey ci kaw suuf bu toll ni ñay li ko fi bàyyi mooy tamkiin dinosaures yi dee nañu hippomodère dee nañu ninki làqatu nañu li des tey di feeñ ñay benn bëñam cinquante kilo la ñaari bëñam di cent kilo ñay dana dem ba cinq tonnes te benn tonne mooy fukki cent kilo kon ñay mooy lan makin la ko yàlla jox moo tax danga gis ñaari wëliw kii sakkiina la am kii makiin kii nga bëgg koo dóor sa loxo dagg daanu kala nga dóor ko ba mu xalangu dara jotu la nga foog ne kii moo ëpp maqaama kale déedéet kii ci tamkiin la toll kële ci sakkiina la toll kële dafay defaraate loo ko def mu muñ ko kii dafa toll ci fayeku ngir ngir buñ ko yàpp danga tooñ kenn kii de doomam bi dama ko dóor ba mu bugg a dee nee nañ bàyyi bi sëriñ la dara jotuma juddoo soxnaam si wax naa ko nangam soxnaam si def naa ko nangam dara jotuma bu ko doonoon kon nangam déedéet moom paase na makiin paase na tamkiin mu ngi ci sàkki fi mu toll dafa lay fekk sa biir mbon mu defar la waaye du la fekk sa biir mbon mu lay gaañ kon bismillahi rahmaani rahim alif alif alif laam miim alam anna zalika alkitaab laa rayba fihi alif laam miim alam yaalam bi anna allaha yara alif laam alam yaalam bi anna allaha yara alam yaalam anna zalika alkitaab laa rayba fihi dégg nañ ko benn fi rongo kon alif laam miim zahira mi ngi noonu alif laam mooy alam alam yaalam bi anna allaha yara ca saar bi njëkk a wàcc mooy ban saar suratul alaq alam yaalam bi anna allaha yara alam alif laam alam yaalam anna zalika alkitaab laa rayba fii alam ndax xamul moom nit ki zalika alkitaab boobu la téere laa rayba fii amul sikk sàkk amul dengi dengi benn ngoog alif alifun alif laam fa muy 111 alif laam fa muy 111 111 mooy laa ilaha illa huwa kenn du yàlla bu dul yàlla ku dul yàlla du yàlla mooy xutbun 111 mooy kaafi yàlla doy na lépp laam miin alif benn la laam fanweer la muy ñaata fanweer ak benn miim 40 la muy ñaata 71 71 mooy kaana ka 20 la alif 1 la nuun bi 50 la 50 ak 50 50 ak 21 muy ñaata 71 ah kaana allah wala shay'a ma'ahu kaana allahu alif la miim kaana allahu wala shay'a ma'ahu awwalun fi kaynuniyatihi wa aaxirun fi sayruriyatihi nekk goo xam ne ñàkk nekk jiitu ko kaana allahu yàlla dafa mos a nekk rek alif laam mi ngi noonu alif un la laam trente la mooy trente et miim quarante la quarante ak trente et un boo ko bale mooy onze mooy kaana kaana allahu wala shay'a maahu alif laam miim kaana allahu wa kawana zalika alkitaabu alladi laa rayba fii alif laam miim kaana allahu wa kawana fi kaynuniitihi zalika alkitaabu alladi laa rayba fii zalika alkitaab boobu fii amul sikk sàkka laa rayba fii amul dengi dengi laa rey bi fii amul sikk sàkk hudan njub la hudan gindeekuwaay la hudan yéen a ngi Maam Wali Maza Seck la <coughs> lil muttaqiin ñeel waaye topp ndigal yi lil muttaqiin ñeel waaye tere yi nel waay bàyyi yu bon yi cosaanam mi ngi bawoo ci taaqiya taaqiya mooy tengaade taaqiya mooy tengaade tengaade lu tax ñu koy sol musal la ci tàngooru naaj bi taqwa noonu lañ musale ci mooy yàlla taaqiya ci arab mooy tengaade wala taaqiya mooy kii dagg ndawal fi muy teg ndawal bi di ko dagg mooy taqwa ndax bu daggee ndawal bi bant boobu moo koy tere mu daanu di taq ci suuf di xejam ba kenn du ko mën a lekk kon taq wallaay noonu lay tere nit ba doo xejam ñàkk mën a jaamu yàlla lil muttaqin Seydina Ali bañ na ko kan mooy ta kan mooy muttaqi mu ne at taqwa huwa al xawfu min al jalil wal amalu bi tanzil wal xanaatu bil qalil wal istidaad li yowmi raxil ragal yàlla mooy nga tiit ko nga tiit ko nga jëfandikoo alquran nga doyloo ci la yàlla jox bañ a xaasaatu bañ a raasaatu nga waajal ne ni dund dikkee dee noonu lay dikkee alxawfu min al jalil wal amalu bi tanzil wal qanaatu bil qalil wal istidaad li yowmi raxil ah ñan ñoo ñi gëm yàlla ñëpp ne yàlla ñun ñëpp dañoo gëm yàlla suturaam dafa rëy du ne diw gëmoo de diw gëmoo diw gëmoo de dafay wax critère bi bu tolloog yow ci nga bokk bu tolloo te yow nga xam ne kenn dàq la yaa dàq sa bopp almuttaqin mooy ñam ñan allazina mooy ña nga xam ne am ne dañuy gëm bil xay bi yi fàddu gisaguñu aljana ñu gëm ko gisaguñu safara ñu gëm ko gisaguñu siraat ñu gëm ko gis ñu malayka ñu gëm ko fekkewuñu yonante bi ñu gëm ko xay biyaat yi li làqatu moo ëpp li feeñ xay bu ñaar la al xay bu xaybaani xay bun xibta anhu wa xay bun xaaba anka li yow yaa fàddu xamagoo lee moo fàddu yeggagul ci yow yeggagoo fa kon dowagoo ko paase nga ko dowatoo ko danga ciy yem rek nga nekk ko yàgg goo fa doogoo ko paase nga ko dowatoo ko da nga ciy yem rek mu nekk kon mooy ñi nga xam ne dañuy gëm xay biyaat li la lislaam rewee mboolem da ngay gëm nga nekk idéaliste nga gëm yàlla gëm Seydina Muhammad gëm mboolem téere yi gëm mboolem yonant yi gëm ndogal yi la ca neex la ca naqari ah? gëm gëm yàlla yonent ci téere yi bésu àllaaxira ndogal yi la neex la naqari bésu pénc et cetera hmm? maa ngi jégalu ci baatu nasaraan bi déedéet con euh, contexte bi la dafa am ñu jóge université ñu ngi fi te dañuy taataan yóbbuwaat am na ñu koy jël direct ñu ngi ko joxe sànq am na ko ñëw ne dañoo jënd crédit lu tolloog juróom-benn junni dana ko def ci ligne mu ngi ci mbooloo ne pour mu jël tafsir bi direct di ko enregistré lii dafa bëri ci mbooloom mi ñoo xam ne mënuñoo teew ci zahir ñii ay këlifa lañu jam du réyuñu mais jamono moo leen permettre ñu génn ñii bu ñu génnee léegi loxo laal leen suñu réew mi dañoo am natt googale buñ ne même sous-préfet la buy génn day ànd ak gendarme ah walla buñ ne préfet la buy ànd buy génn mu ànd ak gendarme man gis naa réew moo xam ne même président bi dafay dem julli juma kenn ko escorté mooy Malaisie hmm? réew bu ñu tuddee Malaisie seen capitale mooy Kuala Lumpur dama doon julli foofu ci benn jàkka mooy Nicara mën ngeen dugg ci kii lu mu tudd internet sama waa ji mu may xool jëre <laughs> jërëjëf mbay yal na yàlla fay la Nicara benn jàkk bu rafet la gisuma jàkk bu rafetee noonu senegal foofu laa doon jullee waxtu julli juróom ca Kuala-Lumpur ca réew mu ci dem Malaisie ci ginnaaw Taïwan ca borik Indonésie waaye boo ne salaamaaleykum da ngay fekk ki nekk sa wet mooy ministre des forces armées wala nga fekk mooy premier ministre kenn du ko garde mën nga jël sa portable nga lëngoog moom photo aadi ñun nag buñ na kii sous préfet la protocole bi ubbi leen bunt bi sëñ baa nga ñëw sikkar leen <laughs> sànq maa ngi naan alaaji mbay fay mu ne ko sikkar bi di dara mu ne wallaay mu ne loxo ni ma xam ne kii ku ko tegal sikkar tey du yegg jumaa ja yàlla fay la yàlla na wuuti sa coono àddina ak àllaaxira ni nga yëkkate sa baat ci zikkar bi yàlla na yàlla yëkkate sa makam cheikh jaa ngeen jëf naaj bi tàng na tey maa ngi ne nongu ci oto bi ngeen di zikkar du rëy ci man yéen a ci dugal <laughs> jàkka ja mi ngi tudd Nikara mi ngi ci dëkk bu ñu tuddee Kuala Lumpur mi ngi ci réew mu ñu tuddee Malaisie ñoo ëpp Sénégal jullit réew mu avancé réew mu avancé yal na yàlla fay leen wa yuqimuna salaata dañuy taxawal julli nga def ko julli Cheikh Abdou Khadir Jeylaani Cheikh Jilaani nee na ñu ngi naan man duma julli xamuñ ne màkka laay <laughs> na yaa haza tarakta salaataka ñu ngi naan yow cheikh gisatuñ nga julli de walam yaalamu anni bi makkata xamuñ ne man màkka laay ah ñu ne ko yow yaa ngi fi baax nga ne makk ngay julle yow tamit wala da ngaa mu ne bu may julli damay teg aljana sama ndeer jannatu fi yamini wal naaru fi shamali wallahu ala raasi wal mawtu fi ayuni teg mu ne damay sama ndeyjoor safara sama càmmoñ may yenu yàlla mu ne dee ma teg ko samay bët alquran sama xel muhammad sama xol bu ma sujjutee bu ma moytu sama bopp day dóor kaaba gi walam yaalamu anni usalli bi makkata kooku mooy suñu waaji wa man fii rijallahi naa la makaanati wa jaddi rasulullahi fi asli yéen a ko fi asli rabbaani kii mooy maamu Cheikh Ahmad Tidiane Chérif kon cheikh lu mu doon yelloo na ko cheikh mooy saahibatu xutbaaniya nee na yonente bi ay joxe man may séddale ku am maam bu mel ni mun nga wax lu toll yal nañu yàlla fayal njaboot googu yal nañu yàlla taas seen barke euh, lii nag dafa mus a nekk ci man Cheikh Karam mi ngi koy nettali mënatuma téye sama sago coono yi bëri na waaye dama doon ñëw bépp fii douze fii ci Kaolack dafa am benn société bu ñu doon tuddee Colas ñoo doon defar tel yi boobu amoon njëgi peinture damay for ci godoron bi ma ruyal ko ma bind sama nekk xasida Cheikh xaadimu rasul kullu wa kullu man baadara waxtu sira ilal huda istara waxtul kibar sëñ Tuubaa képp ku nekk ndaw nga bañ a sànq sa ndaw nga dellu ci yàlla ëllëg dangay noppalu kenn dul topp ci dara ma bind ko sama néeg damay na jàkk di ko xool ma bind sama wàll gi walaysa nafun ala hubbin bila amalin wa taabian sunnatal muxtaar taxtane mii bëgg naa yonante bi jaglu nga yiw ko toppal sunnaam rek nga yegg ci yàlla ma bind boor bi wa man yatawakkal ala allah fa wa hasbu sama ne gëm laa ko bindee woon ca saara njugaari quartier kibbeel ba kon lii may tudd nitu yàlla yi dowul ne leneen de déedéet lii dama jógaale moom rek kii tijaan la kii xaadir la ah bàyyi nee na moom buy wasifa lay soog a xam ne mi ngi yore wird bi nee bu pare moom Muhammad la xam naka ni mu ko xamewoon ci biir wird bi waaw lii mooy góor yàlla ñaata foto sëñ Fallou lëngoog Baye Niass lii mooy lislaam lii mooy lislaam man bu ma demee Touba berne bu ñu toggee damay toog sama lekk bariwul comme ñu sant ba bu ma jëlee fanweeri tibb rek damay bàyyi am a ngi déglu Mame Waly ah, kon ma def ko benn boobu yéen a ngi déglu Mame Waly Maza TV. yéen a ngi déglu Mame Waly Maza Seck TV. luñ ciy def ceebu xaadimu rasul luñ ciy def bu dul yàlla dem ba léegi nit ñi wóolonteetuñu dem ba léegi wóolonteetuñu ah lii mu la jox ndax wóor na suukaram bi ataayam bi kon lislaam nu muy avancé nu muy avancé ñun sëriñ si yéena ma ci boole de bu ñu gisantee nit ku dee la lii ay gaaf la bu yàggul pap pap bu mag bi ki jiite katolik yi Francis dafa dem Égypte pap bi fa nekk dafa génn teeru ko ñu fóonante ba muy discours def na asalaamaaleykum pap bi la de pap Jean Paul ki Francis mu fóonanteeg pap bi nekk Égypte kii catholique la jiitu chrétien la kii orthodoxe yi la jiite copte yi la jiite kii copte yi la jiite kii catholique yi waaye dañoo lëngante fóonante joxante ay cadeau ñun suñuy kilifa mën nañoo am loolu ci ñoom kon yéen xale yi laa yaakaar bu ëllëgee ngeen doon ay xalifa di ziyaarante hmm? yal yàlla def loolu ci barke Seydina Muhammad lu mu teg wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun nga ne wa yunfiquuna dañuy jëriñe mimma razana lañ leen wërsëgal li la yàlla jox bul ko yemale sa bopp li ngay denc alalu keneen la génnee mu lekk ko li ngay denc alalu keneen la jox ko mu lekk ko lu ko mooy yowmal qiyaamati nga lay ak yàlla la la yàlla jox joxe ci la la yàlla baaxe baaxe ci jaam yi bul ndékki bàyyi leen bul añ bàyyi leen bul reer bàyyi leen bul ndogu bàyyi leen bul reer bàyyi leen bul xëdd bàyyi leen donte benn ŋàddu gura la fell ko ngeen bokk ko lii mooy ummatu muhammad waaye gëm yàlla yi wallazina mooy ña nga xam yu um ne dañuy gëm bi ma unzila ilayka la nga xam ne wàcce weef na ko unzila wàcce weef la nga xam ne wàcce weef nañ ko jëm ci yow seydina muhammad te lu loolu de wa ma unzila min qablika ak la ñu wàcce weef la la njëkk jullit boo gëmee alquran te gëmoo tawraata biibul yàlla amul soxla ci yow boo gëmee biibul gëmee alquran yàlla amul soxla ci yow boo gëmee alquran évangile yàlla amul ci yow soxla boo gëmee évangile gëmoo alquran yàlla amul soxla ci yow waaye évangile bu baax dafa amatul évangile bu baax dafa amatul fukki évangile ak ñaar tey moo am ci àddina bi fukki évangile ak ñaar moo am tey ci àddina bi église ñeent la ci d'accord mooy bu Jean bu Marc bu Luc bu Paul yi ci def ñu ne du dëgg kan moo ci nekk dëgg biibul bi ma gis mu wér benn la biibul bi ma gisee sama bët mu wér benn la maa ngi ko gisee ci kaw montagne bu ñu tuddee ak sum ci Éthiopie te amul escalier da ngay grimper yéeg buxtu nasar ba mu jógee baabil di toj si baytul maqdis di Jérusalem yahud yu ñuul yi ñu tuddee falasha ñoo jël tawraata di bible daal daw yóbbu ko Éthiopie mooy yahud yu ñuul yi ñoo nekk Éthiopie montagne ñu ngi ko tuddee ak sum sorantewut ak ak bilaal yi ak dëkk bu ñu te madiyatu najashi fa la ni gëstu tëdd boobu laa gis bible boo xam ne l'islam mën na ko accepter lu ko mooy benn bible ancien testament ak nouveau testament dañ cee def lu leen neex génne lu leen ci neexul waaye bu njëkk ba boo ko gëmul te gëm alquran yàlla amul soxla ci sa ngëm da ngay gëm boobu ne téere bu wàccoon la nga gëm bii ne Muhammad moo ko ànd lii mooy wasatiya lu mu teg wa bil axirati hum yuuxu dañuy gëm àllaaxira àllaaxira mbokk yi luy am la mhm. sama mbokk bambara ñoo naan <laughs> ni min ka duniyaa ni min saar de ka duniyaa baana ñu ne àllaaxira amul àllaaxira am la ne ala sono ne ala moso waaw laaxara ba kee leen de àddina gi dafay jeex dañu ne àddina du jeex dafay jeex jant bi ay million ngi at la jant bi ay million ngi at la jant bi dafay tàkk jant bi dafay tàkk benn seconde bu nekk mi ngi taal 4,6 million ci tonne carburant lay taal 4 virgule arbaa malaayin tonne min a taaqa al ishaiya lii lay taal li cosmologie la nangeen ci bàyyi xel cosmologie la jant bi mi ngi taal seconde bu nekk waxuma minute de minute sax bëri na waxuma heure de seconde bu nekk jant bi mi ngi taal ñeent million ak fell ti juróom-benn ci tookay dangaru tàngoor lay taal ba ko yàlla binde ba léegi kullu man aliha faanin kon bés na jot mu jeex Cheikh Ibrahima bu taalee 4x4 mi ngi jëm Dakar mu def ko réseau à muñal ko na dem Dakar dellusi bu demaatee mbuur lay yem carburant bi day jeex ko de bu jëndaatu day jeex jant bi tam ni muy baagante dafay jeex te jant yi moo yore suñu guddi ak suñu bëccëg gàncax yi ak nit ñi ngelaw lii di daw yëpp yàlla mi ngi ko aj ci kunu jant bi bu jant bi taxawee lii dafay jeex te dafay jeex luy tàkk guddeeg bëccëg day jeex kon téye ngeen ko 4 virgule 6 4 ci million ci ay tonnes ci tookay dangaru tàngoor la jant wi taal ci benn seconde dafay jeex comme ni nit di jeex fukki at yu nekk nit ki dina dee ba judduwaat dafa am lu ñu tuddee cellule ci tubaab cellule cellulaire mooy xaliya xaliya mooy tuppanti yaram toppante yaram topp doomi adam bu nekk sa yaram ay pepp-pepp la moo sa biir bu jooyee nga ki toog fa la dégg ko parce que ci pax yooyu la jaar boo toogee fa sa biir ne kuuc man ma dégg ko du sa nopp la génn bën bëni ci sa yaram la génne boo ñaqee fan lay génne yarami doomi aadama yëpp bën bën la waaye sewam bu jégg dayo moo tax leneen du mën a génn fi ñaq di génn yàlla def foofu kawar boo tàngul yàlla du nangul ndox ñëw pour mu seddal sa der balaa muy kotom subhaana zil mulki wal malakuti bu seddee mu indi deret ngir sa yaram tàng liiw bi bàyyi la bu tàngee mu indi ndox mi ngir der bi sedd bañ a bañ a kotom bañ a ras kan mooy def li faalu li maa yuridu arba faasila sitta malaa yi ne ton mina taaqal ishaa'iya loolu la jant bi di taal ci benn seconde kon yàgg-yàgg mu jë bu jeexee àddina jë doomi aadama bu nekk am na mille million million ci ay ci ay tuppant moo dajaloo doon benn doomi aadama te benn seconde bu nekk cent vingt cinq million mi ngi dee fii ak fukki at yëpp dina dee ba yeneen remplacé leen lan la jul remplacé mooy pituitaire inna jaal naa fi ak axlaalan mooy fi doomi aadama di xalaatee même bu dee fii ba ay at buñ ko laajee dana wax lan moo rey nit ki ñaata at la dund ñaata ñaata yoon la lekk ñaata yoon la gis mooy la tige pituitaire mooy axlaalan bii nekk ci ndong yi fii kon adduna bi dina jeex de àllaaxira dina ñëw de jant bu fayeeri mooy ñun jeexal nañu beneen monde waaye dootul baa monde bii de ulaayka ñi gëm loolu ah, humu ñoom laa wax de ulaayka ñoom ala hudan min rabbihim lii mooy njubab yàlla waxuma du ngeen am seen njubi bopp de ay loi yi ngeen di wote ci assemblée bu keneen ñëwee dindi ko ay constitution bu keneen dikkee dikk dindi ko déedéet. seen clic yéen ñi abonné gul gaaw leen gaaw activé cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jaa ngeen jëf.